tey campagne yi du kampanye de ren campagne yi du yomb ren sama waa ji la moom nee ko dajale naa mbooloo yoo xam ne nii waxtaan bi maa xam nga man nit ñi dañ maa dajale ay mbooloo yu bëree bëri bëri fi mu ne nii nag woo naa ko téléphone xam naa léegi mu woowaat ma su ma woowaatee naa ko jox naa la ko jox nga wax ak moom. Hmm. ay day dalla ki ma àndal moo jara àndal ndax dafa liggéey ci réew mi li ñëpp teg ci seen bët kon man bu ma ko yóbbul pale rek tooj bii pale laa ko jëmee bii paa pale pale ba moom moo ko moom paleem la danga ko ko bàyyee.

déggoo nit ñi ni ñuy yuuxoo noonu ci mbedd ñu ngi yuuxoo mama mama ji di mel yow lañu andal ak ki nga wara andal du deug han ah, fi mu ne nii nag bopp junni lañ may wax neena nañ naa ci yok 500 sax mu nekk 5500 mom kañ ku nekk 5500 han ah, <laughs> yow xam nga ne ko and ak yow rek du daan grawul de <laughs> ah bu ding ko amul ben problème yow kañ déggoo ma loo def mo gën lo defal waaw kañ. yow dégg nga foofu bopp junni. bopp si mille cinq mille cinq cent. yow daal xam nga lan laay def <laughs> man nag am na équipe bi ma yoroon. Ah. pour lele borom jubbu. <laughs> <laughs> naa la ko dox benn yoon. yaa bot calmé benn yoon. baadu. jubboon boobu mu bëgg ñoo rek xale yi dawkat sareet bi sax dañoo dugg. ah yow. waaw léegi nag yow nga bëgg a ànd ak moom. fan la yu welee li xewat yow daal jox ma 4000 rek ma jox la équipe am wax ji jeex. yow yow noppi 4000 laa la jox yow équipe ba complet. affaire bi daal affaire bi moom léegi. màttante la ak gàjjante ak gàjjante ak soppante yow yow gis nga man boo ko toppee doo réer bonjour yow daal nañu ko defee noonu lu dëgg ni ñu koy defee rek noonu la kat bopp bu nekk ça va waaw ça va si maman bopp bu nekkat mi bopp bu nekkat mi foofu toj surtout man li ma yor ci ay bopp sax waaw mën nga see doon di quatre mille cinq cent la ak moo yow maman lan la ngay mën ni sonal téléphone yow lii lan la waaw doy Mama, sa kat lan gu jeex. mam lan la ba mu fekkee wax doo coupé. yoo xamante ni nañ koo waxtaanee quoi. waaw dëgg la. kër gi suñu kër la ñun ñoo ko moom. Mm. ginnaaw ay jàmm en puissance. ah la gi sur terre. bon te man sax am na lu ma xalaatoon. kii man ay jooy la may def. benn idée boo xamante dafa si ci man. léegi la ma quoi. parce que man. duma leen ko rusal wax ndax samay naw la ngeen sama parti bi temps yi dafa commencé am ay problème ay benk ñenke ay faay erreur yu garaaw bon parce que moom dafa feebaroon tëdd daal jékki-jékki rek di di di wàccu <laughs> bu leen ma ree ma laa si nag déedéet bul ma si nap bul ma si nap léegi nag ma ni woon est-ce que dund bi rëccul non non du demeewul noonu sax parce que yóbbu nañ ko mais dañ ñi dafa faaw mu toog fa ba élection yi jàll parce que kattanam maytu ko léegi ah. ma ne woon na comme demee na noonu te yow mii fan yi gis naa ni ki ngay àndal wax dëgg yàlla su dee dëgg rek moo neex yàlla ki ngay àndal jàmbaar la si puissance dañ ko wax ki muy àndal jàmbaar la. ah da ngay laajte wala ngaa bëgg xam. damay leerlu. ah leer na naa ñëwee ak a nekk jàmbaar. jàmbaar la te gis nga man tëdd naa guddi nii xam ni yow ki ngay àndal jàmbaar la parce que mooy borom métro yi. barki mo Ndiaye barki Demba Ndiaye laa dégg stade yi berengah fi defar. te stade bi rek nga xam lo ci xam asaya Atlantique be mu ngi fay defar ngandam stade boo xamante ne pour rakay yi jeni fi ni fowé wéro ma ngi lay dégg sank ngay wax am solo gis nga yow so waji jambar la. ma won comme ya ngi tuddu affaire de khalis man xam nga jorna mbolo parce que sama waji dajé dajale nako am mbolo plus de 300 personnes. la xam nga ñu tay dañuy am dara. man ni woon nag bopp junni yooyu ngay wax ah. Mm. léegi tey bopp junni yooyu noonu tey man fu ma la joxee samay bopp nu muy demee jox la ko rek bopp bu nekk 2000 laa ciy laaj. 2000 <laughs> nga ciy laaj. waaw waaye man 250 laa lay jox. bopp bu nekk nga mën jël munoo nga bàyyi ma man fi mu ne nii ay dontu keex namm ma cocoo laa la wax. waaw mais xale bi boo jékkoo da ngay baale. lu ma rek bësal jeez ma ñëw man yooyu safu ma. jeez. dama lay dégg par guddi ngay jël sa siyo di sangu waaw. sangoo saafara xoolal man damaa takk ba fii. ii maa la gën a sangu saafara pour sama maa la gën a naan lu ma rek. sama bu nekkee sa asma bi dina gën a lii ndax temps sedd lañ nekk rek leer rek ma wax ak yow. waaw kañ. dina gën a yëngu. gis nga junni yi ngay dégg du ma la ci jox naada. fifteen doo ko laal. puissance te maa la dàq sangu man nga bëgg a catu. waaye mënoo maa catu. demeewul noonu même pas ba may sangu sangu ko président man la wóolu man la yaakaar te maa koy falaat. non loolu moom am na. xoolal yow déggoo sama mbooloo bëgguma say mbooloo ma. maa ngi 300 personnes 300 bopp. waaye yow doo leen dugg dugg sa nekk bi nga bàyyi sa ngoor bi ngay jël bi ko wanteer. saa juróom waa léegi wuy ma nga garaawul. et eh, xoolal transhumé dafa xew ah dafa xew nañ ko wax te dee. xam nga lan la. Hmm. léegi garaawul man bopp bu nekk 2000. aywa garaawul bopp bu ne 2000. man ràng naa la bopp bu ne 300 personnes bopp ne 2000. dégg wàcc daanoo ci gën a gaaw boo bañee ndigg li ne karaj 250 boobu bu nekk boo bëggee boo bëggee nag ma yokk defuma loolu pour lan loolu eh kese jënd ataaya baax na kat ndax yow ataaya mooy defuma loolu maa bañ journal bi nga yor 200 bu ñu fa tag wax xanaa xamoo sama président man li muy def li yow ci gën a ndaw digg géej gis nga océan Atlantique mu ngi fay waaj a tabax bi stade bis bu ko fa tabaxee pour rakkee yeeg yooyu fu ñuy foowee wéroo waa léegi mu ngi noonu comme tey moom yow yow bopp 5500 bi dans les normes waroon na ko yokkal. yow du ma la yokkal déglu ma fii boo amee 1500. ndax nga yokkal ma man wax ju bëri ji nag du lu may man yow moom du ma la boole samay parti ngay wokkati noonu xam naa koso kosaa bi dinaa ko wax président mu pompé fi mu nekk. <laughs> non non non garaaw non garaaw. néegam ba de wuy ma wuy ma waay waay ji. wuy ma tukkal dem nag. léegi wuy ma xam nga nu muy demee defal ma loolu yow tamit. waaw dinaa waxtaan ak moom. ah dinaa waxtaan ak moom. bu la jaay ngoram bu taxee mu jóge ci parti bi mu nekk. bëgg a ñëw sama parti man damaa seet. yéen ma gën a goree di yéen. Ah. yéen yéen ma gën a goree di yéen. waaye kii fecceeku la eh, eh, xam nga lan la. kii ah. damay mbalak boobu ba léegi di négocier muy am lu muy kii. gis nga réew mi suñu réew la ñun ñoo ko moom gis nga man sax léegi joxatuma kenn ay bopp léegi dama damay xeexal réew mi léegi. je suis fier man je suis fier d'être citoyen réew mi lay xeexal. citoyen bi sax yéex na. yow man doo ma jox yow. man doo ma jox. yow dégage. dama leen di boole. yow yaa président bi nga àndal dama leen di boole par force. yow ko yow soo may boole sax koo may booleel. day def lu ñuy roole. très bonne question léegi yéen ma di booleel dem feene xaw ma euh, ku cour crème la xaw ma cour crème laay dem. Ah, boole leen cour crème laay dem. ay défaillante ngeen yéen. yow demal des vrais a ma nimamal ki réew moo la métti mais mun leen ci dara nimamal ki réew moo la métti mais mun leen ci dara dégg nga demal dégg soob yéen da ngeen ni da ngeen ni soob yéen waay mu ngay sama ta sa tànk ama la ma ci neex buy dox buy dox day jiiroo daal yi mel ni barata ma koo ah, yërëm man na ko sa picc dafa waaye mën ko jox jox kii dama koy gis muy sangu di takk di naan maa ko jox mu nangul ma ki ma àndal duma ko def man fi mu ne nii bàyyi ma mari fara bàyyi ma binjoona bàyyi ma Ziguinchor ak lu Casamance bàyyi ma damay dugg di sangu di naan waaye mën nga ko jox juróom fukki rek xam nga ne kii dafa sonn ko ma la di taxawee daf ma koy yàqal bàyyi ah, rek yow ci yëbaate daal yi ma dama wax ci suuf si man dafa tàng mel ni oto bu paan